jàpp leen tëj leen ci kaso ak ñi nga xamante ni nii tey projet bi tax ñu ñàkk seeni bakken ñàkk seeni liggéey am ci ñoo xam ne tey nañ seeni ay jëtóor ak jirim yuy ba kon voteel ngir nga fomp seeni rangoo ñi ak seeni rangoo doma doom ak seeni soxna yow patriote bi ngir ay junni junni junni ay jeune ci sa réew gaday nanu génn réew mi ngir ñàkk fee seen ñi ëpp ci ñoom wala ñu bari ci ñoom seeni bakkan tey des ci ndox mi ñooñu dara yóbbeewu leen loolu lu dul échec bi nga xamante ni nii nguuru sénégal échec na ko patriote votel ngir nga dagg buumu njaam gi nga xamante ni france mu ngi ñu ko takk ci suñuy baat ca suñuy maam ba fii ñuy wax ak yow france gi nga xam ni tey rey na ay junni junni ci suñuy maam lépp tegu ci ak jaay doole ak tooñ fàttalikul le massacre de Thiaroye ñaata lañu rey waaye ñaata tamit lañu tëj kon voteel ngir buumu jaam gi dokk nga am liberté bañ a tooñ say sët patriote voteel ngir arrêté ñi nga xamante ni tey jël nañ seen réew dem jaay ko France gi nga xam ni tey moo rayoon seeni maam tëjoon ñi baaxoon ci ñoom voteel ngir nga nekk gor waaye voteel ngir démocratie ak dëgg delluwaat fii ci suñu réew votel ngir teral gi ñuy teral tooñkat yeeg sàcc yi arité ak jàpp gi ñuy jàpp ñu seet wicc ñi voteel ngir ñi nga xamante ne ni dañoo bëgg jël fenn def ko muy seen métier ñu fas yéene koo dunde jël wax ju ñaaw di ko teg ci deri gor yi fu ñu toll votel ngir ka waatoon ni bis dara du ko jaral ci àdduna mu àtte lu dul dëgg tey mu jaay ngorom ngir alalu àdduna ak privilège yoo xamante ni yëpp fi la koy baax voteel ngir ay jeunes yu baree bari gàddaay nañu génn seenum réew ngir xuqutal ak métital gi nga xamante ni ñu ngi ko doon def ci seen kaw voteel ngir néew gi doole yi nga xamante ni fekk nañ leen ci seen alal daaneel seeni kër nangu seeni tool ñuy tuur seeni rangooñ te amuñu menn pexe kon voteel ngir naqarlu jaay doole googu ak lu dul yoon li ñu teg ci seen kaw voteel pour nga won àdduna bi ni peuple Sénégal peuple la boo xam ni dëgg la bëgg te peuple la boo xam ni ki dëgg rek lay àndal patriote fexeel ba nekk doxandéem gi nga nekk ci sa réew mu arité ndax dee ci tedd nga sax mo gën di dund ci sam réew ba pare nekk fa jaam yow patriote bi ginnaaw li fi jaar lépp ndax di nga amati naqar wu toll ni bis bañu la ne mandat dépôt nanu Ousmane Sonko kon tey sa yitte mooy projet bi am ndam bul jël sa nopp jox ko képp kuy wax ndax ñi ëpp ca ñoom ay bukki la nuñu sangoo deri bëy borom journal ya borom débat ya ak revue de presse ya ñëpp ca yam kon patriote bi Dasal sa carte d'identité te ngànnaayoo ko ngir lépp loo fi gis te du yoon sa carte boobu moo la mën a dimbali pour nga jëlee ko fi patriote mayal nopp te bàyyi xel kala yee ba ngay nelaw mu xamal la ba nga xam te kooku du kenn ku dul sonko kon vive pastef vive président sonko focus les patriotes le 25 février 2024 ñu jëlee fi fenn saxal fi dëgg